mën waat leen ngeen mbokk internet yi rek ñu dellu si waat si seen rubrique décortique bu soxal série bii di Virginie nekk série boo xamante ne lépp luñ ci joué rek ci école yi lañ koy joué ak yenn yoo xamante rek dañu koy ñamal ci biir kër yi Virginie nekk jeune fille boo xamante ne dafa jóge fu mu dëkk ñëw jàng si si beneen école ñu gis nag rivalité yi am digganteem ak moom ak ki nga xamante ne mooy kat yi euh, séquence wala sax euh, épisode bi nga xam ne moo daw ci samedi bi nag ñu am ci jàngat yoo xamante ne euh, gis nañ ko mu nekk loo xamante ne jamono ji euh, dans les écoles donc actuellement ñuy wax ci wàllum sexualité bu ñu koy jàngal daanaka élèves yi dañuy kontaan dañuy yaakaar ne c'est pour jouer et tout donc gis ngeen ki nga xam ne mooy pot moo nekk seen professeur écofam et en plus écofam dañ ci tàmmoon sax d'habitude euh, koo xam ne jigéen la waaye xam ngeen pot nag yàggoon nañ ko sonnal ci wàllum euh, tooñ ko dafa bëgg jigéen kon bu ñëwee di jàngale Ecofam euh, gis ngeen classe bi euh, ni ko élèves yi di ko kaañoo dañ ko jàppee kaañoo loolu yi sax bari na ci école yi ndax professeur bu ne rek école boo gis rek am na professeur boo xam ne dañ koy jàppee kaañ soit sa comportement wala sa habillement wala sa manière yi nga xam ne moom ngay def noonu lañ ko noonu lañ lay tooñee wala sax ñu jox la beneen tur boo xamante ne sax moom lañ lay kaañoo au cas buñ la gisul mu nekk séquence boo xam ne moom mooy jiitu euh, ginnaaw bi nga xamante ne projeté na ci classe yi gis ngeen réaction euh, élèves yi nga xamante ne ñoom tout le temps lu ñu bëgg mooy nañu waxtaane ci wàllum fo waxtaane ci wàllum caaxaan mais quant à quand il s'agit donc de de d'étudier de parler des choses intéressantes donc duñu leen gis dañu nekk toujours derrière que euh, le cas de ki nga xam ne moo ci gën a am yaram mu tudd Ndaw je je j'ai oublié son nom moom it ci la bokk mu nekk loo xamante ne am na ci école yi école yi tout le temps ñi nga xamante ne jàng moo leen indi mais am na ñoo xamante ne sont là pour ambiance classe bi wax fii dem fee mu nekk loo xamante ne Ecofam bu ñu koy jàngal. ñëpp dañ lay jàngale lépp li nga xamante mooy affaire sexualité mais pas pour nga def ko mais pour nga comprendre xam lu bëri sa àdduna en tant que femme en tant que góor aussi ñu ñëpp ça nous intéresse donc c' était ça mais gis ngeen ko ni que élève di kaño ki nga xam ne mooy pot waa benn séquence bi nag ñuy wax nag ci école bu ne rek boo gis dinañ wax dina am élève yoo xamante ne rek dañuy bëgg jàng ba dañ leen di e, tooñ sax wala ñu tuddee leen yenn tur yi mooy le cas de moment am ñoo xamante ne nag demuñu jàng dañ dañuy dem fofu rek pour perturber wala nekk ci école bi euh, ku ne ñu wax ak yow ku ne ñu jaxase la et tout donc kenn ku ne si ñun dund nañ ko bi nga nekkee collège wala primaire di nga primaire euh, di nga am ñoo élèves yoo xamante ne macha allah quand tu es bien en classe donc tu n'auras pas beaucoup euh, d'amis à côté de tes camarades doo gis xarit yu bëri di nga gis ñii di la mere mais nag tu seras l'ami des professeurs parce que professeur de dañuy xam ne yow tu es bien donc mu nekk loo xamante être bien dans une classe euh, dafa xaw a parce que y aura la jalousie des uns et les autres mais aussi y a la les moqueries dañ lay tooñ di la kaañoo mais tout ça euh, parce que ñi nga xam ne dañ lay tooñ bëgguñoo réussir parce que est bu baax boo gisee sa morom di def yéen ñi war ngaa aussi nekk concurrence am ngeen di concurrence si dans dans les dans les dans les devoirs avoir de bonnes notes et tout mais loolu. Euh, bokk na ci li nga xamante ne tamit am na ci école bi histoire la boo xamante ne ñoo ñëpp dund nañ ko kaw na ci au collège wala au primaire ba tey jii sax dafa am beneen séquence bi nag toujours dañuy wax rek ci euh, élèves yi le comportement bi nga xam ne moom la élève war a am am classe envers son professeur donc juste à l'entrée de du professeur les élèves doivent tous se lever donc pour montrer un peu de respect euh, à travers ce professeur mais gis nañ ko bi nga xamné porte Pod dafa yegg Il y' a aucun d'entre eux boo xamante rek jogna euh, ngir montrer un signe de respect en plus les autres étaient là en train de rire ni di di euh, di di di camoufler wala di di professeur Il y' a toujours ça dans les classes donc amna na ñoo xamante ne moom lu ils sont très cool ils ne bavardent pas bu ñu elles ne bavardent pas elles sont très cool malgré elles sont nulles wala elles ne peuvent rien elles ne connaissent rien donc dañuy rester en classe euh, calme toujours les perturbateurs sont dans les classes dans les écoles donc nañ ci xel série la boo xamante c'est typiquement à l'école donc on a fait montrer que tout ce qui se passe à l'école donc actuellement et et li nga xamante ne moom fa am ñu séquence euh, mu est euh, ki nga xamante ne kat tout le temps elle se montre être pour la la des je peux dire la reine de la classe donc de l'école même en train des arrêts elle fait des choses Je xamante normalement bon élève ne se comporte pas comme ça. Euh, le fait de, toucher les cheveux, de, manipuler, de faire des trucs de femme là, je pense que là, l'eau world am en classe, un élève doit se comporter, tenir bien et tout. On n'est que quoi malgré tout, elle ne parle pas beaucoup, elle ne bavarde pas, mais son comportement, c'est pas un bon comportement pour un élève. Euh, qui doit donner un exemple aux autres élèves. Nous aussi Virginie, elle commence à se rapprocher de, de sa copine Fadbintou. Donc, nous malgré tout, il y a beaucoup de gens, nos, nos, anciens intellectuels, nous donnent, euh, puisque vous ne lisez pas, vous ne parlez pas plus bien en bon français et effectivement actuellement il y a peu de nous qui qui lisent des livres donc nous ne lisons pas les livres donc on préfère rester sur l'internet donc euh, suivre les séries et autres choses et pourtant nous avons tout le temps elles sont voilà ils sont tout le temps dans les bibliothèques pour lire et découvrir euh, les autres les ouvrages qui se les ouvrages écrits et tout donc mu nekk loo xamante ne euh, génne nañ foofu benn séquence pour wane que ne y' a peu d'élèves qui lisent actuellement dans les bibliothèques parce que bu njëkk euh, bibliothèque daf daan fees da nga fay xëy dem doo fa am sa place photo mais gis nga bu ñu wanee bibliothèque y' a que Momo y' a Fat et et y' a Virginie donc dans toute l' il y' a que trois élèves ñoo xamante ne ñoom ñoo fa ñëw pour lire loolu dañuy wane que donc la lecture euh, commence à perdre sa valeur donc ñu gis nag beneen séquence bi mooy fi Virginie invité ay xaritam mu def def benn geste boo xamante ne vraiment euh, dafa dafa dafa dafa touchant en fait parce que kii Fatou mi nga xamante ne dafa nekk di liggéey ci jàll bi malgré tout elle n'est pas jeune élève mais Virginie a fait tout pour l'inviter loolu day wone que geste boo xamante ne ñu ñëpp ñoo yem donc que ça soit que ke nga nekk élève ou pas donc bu ñuy organiser normalement war nga ko jël euh, toche nak gis ngeen ko moom c' est le ko xamantene maasàllaa jàngewut ci école bi mais lu mu fa xam keneen xamu ko donc il a fait tout pour que Virginie organise une soirée chez elle donc mu féete ko ak ay xaritam ñu nekk fa Cap ak gis ngeen ko mu nekk fu mu nekk moom euh, dafa nekk koo xamante ne day détresse nit ñi euh, nekk na ci Virginie waxtaan ak ñoom ñu tooñ tuuti kat yi ñëw ci Momo Momo et tout donc mu nekk koo xamante ne. Il est là peut-être pour enlever les stress il est là euh, pour mettre les gens dans le bon sommeil parce que képp ku mu gis mu nekk nit koo xam ne nga xaw a dëng euh, dina la café ba wax la dëgg. kon donc Virginie c'est la toute nouvelle série boo xamante ne ça parle que de l'école et tous les activités ou bien toutes les réalités toutes les réalités du monde qui qui se produit à l'intérieur des écoles donc euh, c'est cette série donc. Euh, vient de vient de les sortir donc le bëri lo xamantene ñu bari xamuñu ko ci école bi mi ngi fay am actuellement avec la série Virginie donc vous pouvez découvrir euh, les visages euh, véritables visages de l'école sénégalaise mais aussi de l'Afrique en manière générale donc mon nek série bo vraiment man je l'aime bien parce que ça me rappelle quand j'étais au collège au lycée et tout nañ ci jangat lu bëri nak te baña a ci de yi nga xam ñu koy def mais dañuy jangat ñun parents yoy ñu xol li nga xamantene leneen loolu mooy daw ci niveau de écoles bu ko defee dinañ toog di seeti suñu doom yi xam ci lu ñu nekk aussi parce que da ciy baax ma leen di jaajëfal yéen mbokku internet yi ci ànd beeg déglu bi di leen di jox dig daje ba ci beneen épisode bi war a daw suba incha allah jërë ngeen jëf